asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan chaîne bi di Fidèle Info dal leen ak jàmm ci seen journal de la CAN dañu koy dooree ak coow bi doxoon ci diggante entraîneur u Maroc bi ak kii di Memba moom mi nag di sélectionneur u marocain bi ginnaaw daan yi ko kaaf daanoon daal di nañ koy woyofal ndax ak demande bi waa fédération royale marocaine de football daal di defoon ngir wàññi yooya daan Mouminek mi di Côte d'Ivoire ba Guinée équatoriale Doré, 4-0 ya fédération bi dafa jël ab ndogal dal di changer entraîneur ñom nak ki ñu tabb du kenn ku dul fayé ancien joueur ak sélectionneur U23. ca geneen wàll gi nag ñoom fédération bi dañu jëloon contact ak kii di seen ancien sélectionneur bi di Hervé Renard ngir ñu abal leen ko ngir li des ci bi waaye nag fédération française bi daf leen ka lànkal kii di Jamel Belmadi nekkoon sélectionneur Algérie moom nag dàq nañu ko ndax euh, toog gi ñu toog ci phase de poule yi xam ngeen ni phase de poule yi weesu na ñu war a tàmbali li nga xam ne moom mooy huitième de finale war kaa ci gaaw gi jongante gi ci njëkk nag war na dox ci diggante Angola Namibie loolu nag bu di h jotee la 20h Nigéria Cameroun loolu ci gaaw gi la ci dibeer gi euh, première heure bi Guinée équatoriale Guinée Conakry Égypte RD Congo di 17h Cap Vert Mauritanie 20h jongante bi ñëpp di xaar sénégalais di ko xaar bu baax a baax mu war a dox ci diggante Sénégal Côte d'Ivoire di ñaanal Sénégal am ndam dernière journée bi nag euh, mardi la war a dox ci diggante Mali Burkina Faso bu 17h jotee. vingt heures Maroc Afrique du Sud loolu lañ leen indiloon ci seen journal de la CAN di leen jox dig daje samdi bi incha allah di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen jërë ngeen jëf